الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Euh, sunu yaay mu ngi koy jaayante ak Mawlana Cheikh Lislam Al Ibrahima Niass Baye waaye da ci jërëjëfal ki nga xamante ne nii moo ko puusi Mawlana Cheikh Ibrahima di sërëñam di maamam di léppam di Mawlana Cheikh Ibrahima Fall yaay booy tey di ajjuma nekk feetu jullit yi ban pour Euh, ci ngëneel euh, rëy lim ñu may ak cofeel gu rëy gi nga xam ne tëbb nañu ci ko fii ci pays Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu ñu nekk di jëmmi mbëggee rek ci maam Baye parce que toujours rek ñun ñu ngi bëgg Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu maa ngi ndokkeel ñëpp di ndokkeel xadara bi di ci jiital xalifatu xam muy euh, Cheikh Papa Maay Ibrahima Niass di ko ndokkeel di ko ziyaare di ko ndokkeel itam ci gan gi am tey di ndokkeel sama papa imaamu akbar sama kalifa sama waajur di ko ziyaare tam ci bis bu tedd bi di di ko ndokkeel tam ci taxawaayam ci xadara bi taxawaayam ci jumaa ji waaye taxawaayam tam ci julliti àddina bi yëpp di ndokkeel mboolem njabootu Maolana Cheikh Ibrahima Niass Baye radiyallahu taala fu góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ak mbooleem mu xaddam yi li ko dalee ci njabootu Seyda Aliou Cissé radiyallahu taala anhu njabootu Serigne Baye Mbaye Niass radiyallahu taala anhu njabootu Cheikh Ousmane Ndiaye radiyallahu taala anhu njabootu Cheikh Omar Touré radiyallahu taala anhu ak njabootu muqaddam yi àndoon ak baay yëpp ñu liggéeyal baay ba am ngërëmal baay maa ngi leen di siyaare di siyaare seen njaboot yëpp di leen siyaare ci fii ci pays Hadara Maolana Cheikh Ibrahim suma pays Serigne ndax euh, ajjuma feetu jullit la jullit yëpp ñoo ko war a feetandoor waaye buñ koy feetoo itam mu ànd ak ëdëb maanaam mu ànd ak yar ak teggin ñu julli ko ci jaamu mu pare ci alhamdulilahi rabbil alamin ci suñu weti sëriñ te ànd cee ngërëmal baay di wax ne léppi baay yokkute la léppi baay ngëneel la waaye rawatina njabootu baay niñ taxawee ci xadara bi rafet na trop parce que gis naa caméra yi nga xam ne moom lañ installé tam ci kaw jumaa ji noonu pour mu wersi ci jumaa ji ak xabru bi ak euh, jumaa ji ak li ko wër ak euh, dëkk bi yëpp sax Medina loolu yëpp liggéey Baye la maanaam baay moo nekk koo xam ne rek léppam taar la Baye léppam dafa leer loolu leer gi nga xam ne bii moom la Baye indi ci diine islam gën a leeral diine islam gën a leeral tarixatu Cheikh Ahmad Tidiane Serif radiyallahu gën a leeral faydu bi loolu rek la caméra yi di firi baay moo ko def rek lii yëpp liggéeyu Baye la. lépp luñ gis lu yokk ci jumaa ji rek nañ xam ne Baye moo ko ci yokk parce que liggéey baay la Baye léppam dafa leer léppam taar la tam euh, ni mu rafetee Nges Gumba Abdoulaye noonu la léppam rafetee te noonu la léppam leere kon euh, maa ngi ndokkeel ñi nga xam ne tam ñoo ko installé ci jumaa ji yëpp di leen ñaan euh, di leen ñaanal toujours itam yokk ci zaahir ak ci baatin ak képp kuy xidmaal jumaa ji rek parce que Baye jumaa ji la am jumaa ji la fonk jumaa ji la ñu wëccee parce que jumaa ji mooy jëmmi sarexatu bu mat sëkk kon maa ngi ndokkeel ñi ko def taalib sama mbokk taaliba yi ko def yëpp maa ngi leen ciy ndokkeel di leen siyaare man képp kuy xidmaal Baay rek bàyyil xel ne sama mbokk nga sama lépp Mawlana Cheikh Ibrahima Niass Baay radiyallahu man utuma dara lu dul Baay bëgguma dara lu dul Baay mooy sama lépp kon maa ngi ndokkeel Cheikh Mahi Cissé porte-parole Medina Baye moom itam ak mbollem jobatu maulana sebran, way di wax jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye jërëjëfee Baye. alaykum wa rahmatullah jere gen jëf yeen sama jobot liggey bi rafetna ma sha allah. Baye Barama Baye Barama ay baram jamana abarama Baye Barama Baye Barama ay baram jamana barama bay barama ay barama ay baram jamano barama bay barama ay barama ay baram jamano Cheikhul Islam ay barama ay borom jamano Seexul Islaam Seexul Islaam ay barama ay borom jamano baay barama baay barama ay barama ay borom jamano barama baay barama ay barama ay borom jamano texe gi ñëw leen ci texe gi ku ànd ak baay da ngay texe yow texe gi ñëw leen ci texe gi ku ànd ak baay borom jamono texe gi ñëw leen ci texe gi woonu baay dangay texe yow jërëjëf baay barama baay barama baay barama borom jamono jërëjëf baay barama baay barama baay barama ibnu abdallah barama baay barama baay barama borom jamono barama bay barama coy barama i borom jamano texe gi ñëw leen ci texe gi wando bay dangay texe yow barama bay barama coy barama i borom jamano barama bay barama wando bay dangay texe yow barama bay barama kon nok bay e da ngay texe yo barama bay barama cey barama ibnu abdallah barama bay barama cey barama ibnu abdallah la ilaha illallah liggéey faydu baay bi Sidi Barhama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey faydu baay